mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullah C3S moo dellu saat ak yéen di jongante mbindum alxuraan bi mu baaxoo amal at mu nekk édition ren bi nag dépôt yi ñeel yi ci bëgg a bokk dina door benn fan ci weeru octobre 2022 war a jeex fanweeri fan ak benn ci weeru octobre 2022 yow mi ci bëgg a bokk da ngay bind lu tolloog xët ci alxuraan def ci sa tur sa san sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko C3S bi la gën a jege wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bi di candidat point yaatal mbind nga topp tegtal yi lay jaarale ci yoon wi tax ñu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 13 46 wala ñu woo Serigne Ahmed Tidiane ca Matam ci ku ci bëgg yeneen i leeral ak foo mënti nekk ci biir réew mi wala bitim réew mën nga woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. bi ni'mati rabbika bi majnun waaw ba tey ñu ngi fii ci aéroport international Blaise Diagne ñu ñëw fii ci kàngam yi nga xam ne macha allah kàngam yi daara lañ kàngam yi alquranu karim ñu koy wax soxna jaara ngom mu nekk koo xam ne wax dëgg yàlla yi ñuy jël bokk na ci ñi nga xam ne ñi njëkk a ràññee ci dëkk bi la mu koy jël macha allah moom moom wax dëgg yàlla Rafah TV dem na fa seeti woon ko bi moom tamit yàlla dogal na demoon na Dubai moom tamit jël fa ndam macha allah muy jàmbar joxoon wax dëgg yàlla daal ñoom ay roy waay lañ ci seen moroomi jigéen ñi ak si góor ñëpp képp xam ne rek yaa ngi woon doon yee ci téere bi ay roy waay lañ mu ñëw fii tey ci fii nga xam ne mooy aéroport international Blaise Diagne ñu koy laaj incha allah moo fi nekk ay tànkam soxna si ñoo ngi lay nuyu incha allah moo war a nekk say tànk fii. asalaamaaleykum ah, wa rahmatulah ñoo ñoo ngi leen di fay di wax ne li tax ñu ñëw ci kii bi aéroport bi na wax dëgg yàlla mooy seet si ñëw jël si suñu champion bi. mooy soxna Ndaté Cissé macha allah dëgg yàlla def na loo xamante ne si moom suñu suñu mbégte la ci ñun ñëpp surtout waa Sénégal. Mhm. jëlalu ko waa Touba kese waaye waa waa Sénégal si jëmmam la ko jëlal wax dëgg yàlla macha allah mooy koy ñaanal muy njiglaayam te mu mu mu muurloo ko. yéen ñi moom da ngeen di déggante ba da ngeen di joxante ay conseil seen biir kuy dem ngeen koy ngeen koy conseil wala wala lan ak yow tamit lan ban yëg-yëg nga yëg ne bi mu yëg bi mu bi mu demee bi demee foofu. waaw moom nag wax dëgg yàlla ñoom ñoom moom. comme bu fekkente ne ñun suñu suñu biir. Mm-hmm. balaa ngay dem kenn ku ci balaa moo dem faaw. ku mu gën a jege rek ca moom lay dem nga xam ne koo xam ne yàgg naa dem ci concours ci moom lay dem mu joxe koy conseil waxtaan ak moom ba nga xamante ne si dellu comme xelam dellu si na ba nga xamante ne si dootul xalaat dara du comme bu demee ba foofu du dara du ko jaaxal daal waaw man nox dëgg yàlla nag kontaan naa trop ci concours concours bi doon def wax dëgg yàlla kontaan naa te li ma si gën a neex nag mooy ragalu fa kenn amul kenn ku muy ragal foofu xam nga bu fekkente surtout nit ku ñuul. bu buñ demee si genre concours yu mel noonu buñ gisee naar yi nit ñuy taree. ak tamit alxuraan bi ñu wàccee ci ñoom. tamit dañuy dañuy xaw a mel ne ku ragal ku leen xaw a ragal ku am complexe ci ñoom. waaye nag moom wax dëgg yàlla yàlla def na ne moom suñ suñ borom suturaal na ko ci loolu waaw dëgg yàlla alhamdulilah. yéen jàpp nga ne moom foofu dund na fa ay jafe-jafe yow mi nga xam ne njëkkoon nga faa dem ak moom wala ak moom wala ëmb fa benn jafe-jafe ci dem gi ak ñëw gi. déedéet jafe-jafe moom mën na faa bañ a am ndaxte boo xasee ba jógee sa réew. jëm ci aéroport bi aéroport boo xasee ba wàcc. moom say jafe-jafe jeex na. jeex na doo amati benn problème ba ba ngay ñibbi si waat. incha allah dëgg yàlla ñoom ñoo lay jàppale ci lépp ñoom ñoo lay jàppale ci lépp ba ngay ñibbi si waat. xam naa kenn du tàggatoo yow te wax dëgg yàlla nag te jàngaloowu la alxuraan dañoo bëgg léegi nga jàng tuuti rek incha allah ñu dégg la te riwaay bi nga jàng nga présenté ko ñu dégg. maa ngi jàngee ci riwaayatu Bazzi an Ibn Kathir. macha allah bismillah. a'uudu billahi minash shaytaani rajiim. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم jërëjëf a Diarra Ngom macha allah barakallahu fiik yal na yàlla defal la barke def la mag te sàmm la macha allah mbokk kon loolu bokk na ci incha allah ba tey jii rek ba tey suñu candidat bi génn gudd gis ngeen suñu mbokk yi suñu xalifa yaa ngi nii Serigne Khady Diakhaté mooy ñëw nii si Mourtada ñu ñëw incha allah Serigne Khady Diakhaté incha allah rabbuna ñu am mbokk yaa ngi nii sëriñ Bachirou Sakho sëriñ Salihou macha allah mbokk yëpp wax dëgg yàlla ñoo ngi ñëw incha allah salaamaaleykum sëñ bi jaxate jaxate leen def laa jàpp rek alhamdulilah jaxate sëñ bi ziar baax macha allah alhamdulilah ñoo ngi ciy liggéey bi tabaarakallah <laughs> macha allah ñoo ngi taxaw ak sëriñ Xaadu jaxate di kenn ci ñi nga xam ne ñoo jiita rabitul madarisul quraanil karim fi Sénégal rawatina ci farax bi nga xam ne moo nekk Touba mu ñëw fii tey moom tamit ndeysaan teew fii nga xam ne mooy ci aéroport international Blaise Diagne ngir teertu suñu kandidaa bi nga xam ne moo demoon fële ca Dubai yàlla dogal mu jëlee fa raw gàdd ga jël place bu njëkk ba ñu ñëw fi incha allah ñu war koo teertu comme ni ñuy teertoo buur en tant que doomi daara doomi Touba yu jugee Sénégal dem ba Dubai yàlla dogal mu jël fa première ci jongante bi mu doon def incha allah rabbana sëriñ Xaadu Jaxate di suñu waay ji ñoo ngi leen nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Mahamadoul Basir ngi leen di delloo nuyoo di leen siyaar. lan moo waral sëñ bi tànk yi ngeen ñëw fii en tant yéen ngeen nekk ay kilifa mënoon na toog foofa di woote ngeen jugee Touba ba fii ngir lan ngir teertu ci xale bu ndaw bi nga xam ne moom mooy jugee Dakar moom mooy jugee fële Dubai ci jigéen ngeen ñëw di ko tax moo waral seen yëngatu bi. bi. Mhm. ñëw ba fii. Mhm. alxuraan moo ko waral. alhamdulilah rabil aalamiina. alhamdulilah rabil eh, ndamal jullit yi. yëpp ci àddina waaye ndamal ahlul quran ndamal waa Sénégal loolu moo tax bi nga xamee ne suñu boroom def na tawféex gu rëy gii li ñëpp bëggoon suñu borom baaxe ko suñu réew alhamdulillah baaxe ko kenn ci suñu doomi dëkk soxna Ndate Cissé feeñal mbégte moomu wan suñu boroom ne buy wax i'malu ala daawuda shukran jëf ju nekk dafa am cant gu ca yeey dafa mel ne jëf jii cant gi ci yey bokk na ci ku ko man nga jóg ñëw ba si fii gàttandu ko teeru ko tatagal ko sagal ko san suñu borom wan ko ne ko am nga lu rëy ba yeneen moroomam yi di ay ndaw su ëllëgee ñu yëg ne seen morom bam amee ndam day suñuy kilifa jógoon nañ ñu jël seen itte jëpp jëmee ko ci loolu kon encouragé euh, encouragé ko tas ji ay moroomam ak euh, wan suñ borom ne ko bég nañ ci liñ ñu defal te ñu ngi la ciy sant mooy sababu tànk yu ñu ànd ak kilifa yi ñëw fii incha allah. incha allah mbooloo mi fii dañoo ñëw seen i ndimbali bopp wala dafa am dañoo am ay ndimbali ko ci état ba tax ñu ñëw fi ndax lu mel di wax dëgg yàlla en tant que doomi euh, Sénégal dañ wax dañu wax bàyyi ko dëkk sanga wala bàyyi ko quartier nga xam ne réew mi mu bàyyi ko la ñuy dara ndax lii da ko ñëwee ci en tant que état moo leen jox ay moyen wala yéen ñëw seen moyen bopp. dañoo ñëw comme ay jullit yu seenu téere am ndam seen doom am ndam. dañoo ñëw comme ay jullit yu seenu téere am ndam. Mhm. seen doom am ndam. ñuy ñëw di wane si suñu mbégte. Mhm. tey soññ ci loolu mbokki jullit yi. Mhm. ñu bàyyi xel ne eh, mboolem kuus yi nekk ci réew mi ku ci génn am ca ndam ay moroomam danañ jóg ba fees dell. ñun nag suñu moroom mooy ñii ahlul quran ñoo am ndam kon kenn ku nekk doo xaar état bu la ca fekkee fekk na la ca mhm. doo xaar ab ONC bu la ca fekkee fekk la ca waaye ku la ca fekkutit nga def say pexe ba ñëw rek incha allah kon noonu lañ ñëwee alhamdulilah mhm. ginnaaw bu mu ñëwee ba noppi est-ce que eh, waajal ngeen def ay effort ngir fexe ba mu àgg ci fi mu war a dem yëpp rawatina ci kilifa yi buñ ko waxee mel ne bu demee Touba ci xalifa ba rawatina Sénégal gi nga xam yéen a ngi ñëwee mu dem ci nga xam ne moo fiy yëpp di waaw euh, loolu moom ñun ci suñu wàll ñu ngi waaj lépp incha allahu taala su ñëwee tey jii dem Dakar def yëngatu ya muy def Touba bu ñuy agsi danañ fekk Cheikh Mouhamadul Xabaat mi sëriñ bi denk loolu mhm. ca buntu kër sëñ Touba mu taxaw di ñu fa nekk bu soobee yàlla loolu la loolu la mujj waxanteeg moom mhm. ah fii tamit sànq nii am na ministre conseiller bu ma woo bu fekkee accès wutit mi ngi ci yoon di ñëw moom it wax na ne eh, yaakaar na ne la war danañ ko def kon ñu ngi yaakaar ne fu mu war a dem fu mu war a dem moom de moom déplacé ba ci ci biir APS bi ñu ngi doon waxante mu jógee Dakar di ñëw ñun ñu nekk ci kaw yoon wi di ñëw waaw incha allah ban la war a dem Touba la war a dem Touba bu soobee yàlla euh, ñi ngay dix heures la war a départ Dakar. Mhm, waaye xam nga ne population wu Sénégal mooy population wu Xuraan. Mhm. yaakaar nañu ne la tàmbalee buntu Pikine. Mhm. poste Thiaroye. Kër Mbay Fall. Tëngéej. Pout. Thiès. Ceneba. Xombal. Euh, Bambey. Diourbel. ba ba muy ñëw croisement nga boobu fekk ñu taxaw incha allahu. yaakaar naa fu mu fi dem dana fekk mbooloo ma fa nekk yëpp. Sénégal yëpp di ko fa xaar. ñun danañ ko jëlee si foofa ci rond-point ba yóbbu ko jaar ak moom biir Mbàkke dugg biir Daaru Salaam génn si ci rond-point bi fekk foofa mbooloom waa Touba ñu ànd ba yóbbul ko sëñ Modou Xabaan ca buntu kër sëñ Touba ga ca jumaa ja mu gàttalu ko fa Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu jox koy kàddu jaajëfal ko ñu door a jàll yóbbu ko ca këram bu soobee yàlla alhamdulilah jërëjëf jërëjëf sëriñ Xaaru Jaxate macha allah tabarakallah jërëjëf macha allah ci kàddu yi yan ngay soññee kàddu yu waaw kàddu yu mujj yi day sant yàlla rek te dollee góorgóorlu xam ne suñ borom mi ngi ñuy farle mi ngi wane ne it innaa nahnu nazzalna zikra wa innaa lahu lahaafizuun jamono dafa toll ci matérialiste ci wet goo xam ne bépp secteur bu ñu toppatoowul jël ay moyens def ca dañuy defee ne daa war a dellu gannaaw daara di secteur boo xam ne bu dee ci wàll googu kenn toppatoowu ko waaye nag jullit yi ñun ko ngoyal seen bopp kon ñu ngoy ta xam ne ku ci ngoy yàlla moo lay jàppale incha allahu taala incha allah jërëjëf macha allah mbokk yi nga xam ne yéen seetaan seen site bi Rafah TV ñoo ngi fii aéroport sana Blaise Diagne ba tey di négandiku gan gi daal di génn allah jóge ci bunt bi nga xam ne fi la war a jóge bàyyi ko fële ci Dubai di champion boo xam ne mooy jël première ci jongante alxuraan ba doon am foofu ca Dubai yàlla dogal incha tey ji ñu war koo teetu fi léegi incha moom la ñu xaarandi nii ñu ànd ak Rafah TV fas yéene nañ loo xam ne wàcc na fa ngeen war koo xam ne bu soobee yàlla dana ci def suñ kémtalaay kattan fexe benn am ko lépp rek ngir lan terale ko doomi alquran ak doomi sénégalais yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi incha allah ba tey ñu ci biir aéroport international Blaise Diagne ba tey mbégte mi daal wax dëgg yàlla takk wees na ko a mbokk mi ñi am ci mbégte moo xam ne mm-hmm. mënuñoo wax nu mu toll parce que l'islam moo am ndam mhm. alquran moo am ndam mhm. Sénégal moo am ndam muy doomu ñëpp ñëpp di ko bégee ku nekkoon sañ ngaa jur doom ju mel ni mhm. tey nag l'islam moo am ndam man maa ngi jógee Dakar table Tivaouane représenté daara nasrallah li tahfizil quran indi suñu taalib yi ñu ci bunt bi ñu ngi ñëw ci njiitu imam Sock muy imaamu ratib ci Lamsaar. yore daara li taxfisil Qur'an maam Socé Sock. macha allah ñi ngi ànd ak Oustaz Mar mu yore daara li taxfisil Qur'an. macha allah ñi ngi ànd ak imaam Diop. Table aan mu yore daara li taxfisil Qur'an. ñu ñëw nag représenté daara commune Table Tivaouane Diegsaw yëpp. di wax ne l'islam moo amati ndam. Mhm. lislaam moo amatindam gis nga niñ ñu tertoo woon lions yi fii tey moo waroon a ëpp macha nit ñi ñëw fii tey ñi ñëwoon tert ci lions yi moo waroon a ëpp gis nga ni nit ñi toll mhm. mais alxuraan moo mel noonu alhamdulilah kenn mënu koo suul déedéet mukk ci mhm. moo wàccee alxuraan moo koy watt moo koy jox ndam moo koy jox ndam mhm. ndam bi njëkkul ci Sénégal te du fi mujj incha allahu taala ndam li nag dañ ciy ndokkeel sëriñ bi nga xam ne moo ko jàngal ca daara ja sëriñ Cheikhouna Cissé ñi ngi koy ndokkeel di ndokkeel waay xale bi nga xam ne ñoo ko jox sëriñ Cheikhouna ba mu am di mu ndam li mu indil Sénégal ñu koy rafetlu lool lool lool lool lool mm-hmm, mm-hmm. di wax ne nit ñi nañ fonk al alquran lépp lu fi nit jàng mm-hmm. baax na waaye alxuraan na gën ci li ñuy jàng li ñuy jàng alxuraan na ci gën bénéfice bi alxuraan am leneen amu ko ñi ngi ñaanal suñu doom ji nga xam ne moo indi ndam li yal na yàlla tegal ko ci ay ndam yu bare soxna nday mati siggil na képp kuy jullit nday nati moom soxna la sox ma ne yëkkati na mm-hmm. xoolu képp kuy jullit ñun suñu amoon li ñu gënal mm-hmm. waxuma table Tivaouane sax mais Pikine nag yëpp daara du fa des. macha allah lu ñu mën mobiliser nañ ko. ngir ñëw ci bés bi fi mu nekk nii am na kaar yoo xam ne accès guñu. alhamdulilah kon ñu ngi sant yàlla di leen sant yéen itam. parce que seen liggéey rafet na trop. Rafah TV ñu leen di sant man maa leen di suivre. surtout yow maa ngi lay suivre bu baax a baax. ndax olof yi wax ne ñi bokk teen ñooy laxasoo ay got. arab yi ne bil qarini yaqtadi kon ñu leen di gërëm di leen sant wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. macha allah am na solo lool macha allah baarakallah fiikum tabaarakallah. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu soxna si ñoo ngi lay nuyu baax di la ziyaare. waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi delloo ziyaar bu baax a baax te di leen nuyu yéen tamit. Mhm. tur bi naka la. maam Diarra Bousso. maam Diarra Bousso macha allah ñu gis wax dëgg yàlla seen rafetaay bi gone yi macha allah ni ñu def nii mel na dañoo bàyyi ko ci daara en tant ñu teertu seen moroomu jigéen mi nga xam ne seen champion nga xam ne mi nga jógee ci Dubai ñoo fi lan mbégte moo leen war a dugg ba soxna Diarra nga ànd ak donga yi nii ñëw def mobilisation bu rafet bi. waaw alhamdulilah xanaa sant borom bi tabaraka wa taala rek muy ndam ndamul Sénégal mhm. waaye nag dolleeti ci muy ndamul soxna yi loolu moo taxoon comme daaray soxna la ñu mhm. jël xale yëpp rek indi leen mhm. ngir ñu teertu sunu champion bi nga xam ne moo ñu indil ndam li gën a dàq ci ndam yi te mooy ndamul alquranul karim ngeen bàyyi fan ñu ngi bàyyi ko Dakar Sud Foire waaw Sud Foire xam ne bàyyi ko Dakar te lii rek mooy nekk yitte ji nga xam ne moo leen tax a jóg ngir ñëw seeteertu ji yitte ji rek wala dafa amoon yitte yeneen yitte yoo leen dox yéen eh, yitte ji rek moo ñu yëkkati woon ndax nag waaw alxuraanu karim ndax koo kawe yitte gënu koo rëy ndax ñun yitte ji rek lañ am eh, lii mooy sunu ndam li nga xam ne moom mooy mooy mooy ndam li tax ñu mhm, mhm. la dee farixoon gis nga a koy bokk rawatina doomu daara yi yi ñooy jàngale moo xam góor ñi wala jigéen ñi wax dëgg yàlla ñoo def ñoo yu rëy rëy rëy ngir jàngal ndaw ñi macha allah gis ngeen ko benn ngi nii wax dëgg yàlla soxna jaara buso ji xam ne ñoom lañ fekk fii ñu taxaw ci aéroport international Blaise Diagne bi ànd ak seen soxna jaara buso macha allah taxawaay bu rafet bi ñoo ngi leen ndokkeel baax a baax yéen tamit wax dëgg yàlla di leen ne gone yi def ñoom ay mag ñuy dem bay dem ci ay concours ñoom tamit di ko fa jël incha allah rabbuna Mm-hmm. yàlla ngeen yàlla may la ngeen mokk alxuraan yéen ñëpp dégg ngeen doon bokk ci saalihaat yi incha allah dégg ngeen yàlla leen sama borom defal macha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ngeen ñaanal seen télé bi nag télé bi mooy Rafa TV mm. moom télé la boo xam ne moom daara yi rek ñoo ko tax a jug moom ci daara la ñoo ngi def émission bu ñu wax kaddu daara di jàllale xut bi am solo si Amadou Rafa yi macha allah ñoom la kon nag ñaan leen ne Rafa TV ca kaw ca kanam incha allah ca kaw wax leen ko wala ngeen ko mën na ya. macha allah soxna maam Diarra Bousso jërë ngeen jëf macha allah. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ni ñu leen ko waxee mbokki ba tey ñoo ngi fii ci aéroport international Blaise Diagne liggéey bi gis ngeen ko wax dëgg yàlla ni ko mbokk jullit ñi tertoo macha allah muy liggéey bu rafet ñu ànd ko kilifay réew mi yëpp senegal ñi président yabal Abdoulaye Dia mi nga xam ne moom moo méngoo Sénico ak kilifay sëñ daara yëpp ku mel ne sëñ torox sëñ ab sëñ alhaaj ndindi nii ci liggéey bu rafet nga xam ne wa taala sàmm ko aar ko a moom la sénégalais def ngir teertoo ko soxna si nga xam ne mooy jël champion du monde ci alquranu karim fële ca Dubai ci musaabaqa Fatimata bint Mubarak ñu bëgg xam incha allah rabbuna lan mooy seen taxawaay bi fii ak lu waral ñëw géej yooyu incha allah. waaw jërëjëf loolu xam naa kàddu yu gàtt le doon mooy eh, li ñu fi tax a teew mooy Euh, ànd ak mbégte mi ñi nga xam ne ñoom la ko jàll jaaral seen loxo muy Serigne Cheikhouna Cissé euh, ak Soxna Ndata Cissé mi nga xam ne moom moo doon def jongante bi am ndam lu rëy lii muy dem ca Dubai euh, noonu ko waxee léegi daje faak 48 pays yu mu doon jonganteel yàlla dogal mu jël première yi loolu nag di lu ama am solo loo xam ne lu ràññiku la lu mat a bàyyi xel mhm. sant yàlla rek xanaa di wax na rek ñu gën a bàyyi xel daara mhm. ndax wax dëgg yàlla jot na sëkk nag ñu delloo njukkal daara jot sëkk nag ñu bàyyi xel daara si euh, Sénégal jar na sëkk koo xam ne joxu ko benn moyen amul yenn kii mu def effort boppam indil la ndam lu rëyee nii euh, war nga koo bàyyi xel bu baax a baax a baax na xam ne daal lu la ti teewoon a bàyyi xel léegi war naa dañ nag ndax wax dëgg yàlla ndax sag bi rëy na lool euh, dara ji rëy na lool ndam li rëy na lool loolu moom ñu ngi ciy bàyyi xel baax a baax di sargal yëpp nag di ndokkeel seen daara yëpp ndax liggéey bi seen liggéey la yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla aar soxna si yàlla na yàlla aar Serigne Cheikhouna ak mboolem waa daara ñëpp ñu bi barakatul xuraan karim asalaamaaleykum kaddu kan ngeen teewe wala da ngaa ni ñëw ngir teertu rek ànd ak ñëpp rek waaw man maa ngi ñëw ci turu ligue de secole coranique du Sénégal mooy rabitatul madarisil quraaniyya fi Sénégal euh, rabita boobu nga xam ne man maa yor seen kaddu mhm. euh, gis naa fi ay kilifa Serigne Khadim Ndiaye mi nekk euh, al aminul mi ngi fi secrétaire général bi Serigne Khadim Diakhaté mi nga ne moo jiitee Faran Touba ak na fi mhm. ñoom Serigne Khadim Touré mbooloo daal gis naa leen fi wax dëgg yàlla ci rabita bi nga xam ne ñoom ñoom mbir mi seen mbir la mbir mi alxuraan li ma ko wax rek alxuraan moom amul amul kuréel alxuraan amul xeet alxuraan amul askan alxuraan amul frontière amul continent ñëpp ñoo bokk li ñu ko bokkee moom mooy wa'tasimu bi hablillahi bi wala tafarraqu jërëjëf barakallah jërëjëf macha allah sëñ Alaaji Ndiaye Cheikh Ndindi kàddu yi rafet na lool macha ñu laaj mbokk yi nga xam ne allah ñoo ngi ñëw en tant que tànk ñëw ñoom ñu ngi ziare sëñ bi ñoo ngi leen ziare baax macha allah di leen nuyu ci kàddu gi nga xam ne moo Rafah TV ngeen ñëw fii tey jógee ba Touba ñëw fii en tant que teewal maire bi ci yenn kàddu ngeen ñëwee fi incha allah yenn tànk. waaw ñoo ngi lay fay nuyoo euh, di nuyu euh, waa réew mi yëpp. Mhm. di nuyu nag waa Touba. monsieur le maire Abdou Lahad Ka moo nu yebal ñu ñëw fii man la moo du Ndiaye. ma ànd ak euh, Serigne Mbacke soxna loo moom sëñ Seexum Daaru Rahmaan jiite commission bi nga xam ne si moo yittewoo njàngum diine mi ci biir mairie bu Touba mu yabal nu ñu ñëw teewal ko fii nag teertu soxna Ndate Cissé mii nga xam ne si nii moo génnoon dem ba Dubaay waaye tamit jongante gën fa doon def ci ay réew yi fa sant ko moom mu gàddu ndong ndam loolu andil na ko fii ci réew mii loolu nag yéeg yéeg bi nga xam ne si moom lañ ci am nag ñun waatu Touba loolu sax du doon guleet xañ na waaye nag li wér mooy ah, ah, ndam la loo xam ne si ni kenn koo xam ne si ab murit nga dib jullit mhm. dina neex ci yow ba àgg ci lool comme nii mu neexee ci ñi ñu fekk fii ci Ndakaaru waaye tamit nag monsieur le maire mi xamal ne population Touba bépp ñu génn bu alxamesee mhm. ngir tertu ko ndax moom moo koy tertal boppam ànd ak set adjoints au maire yëpp ànd ak téeméeri conseil yi xam ne si ñoom la sëriñ bi teg ci dëkk bi ñu ànd di ko liggéeyal waaw léegi daal ñi ngi ñaan ñëpp ñu génn teeru ko loolu mooy li nga xam ne si ne moo tax ñu déplacé tey ji Touba ñëw fekk si ñëw gi nga xam ne si moom la ñibbisi fas yéene ànd ak moom ba ca këram waaye tamit bu ñu fa jógee dem Touba ngir waajal teertu bi nga xam ne si moom la ñuy def euh, alxames comme daal communauté rurale mm-hmm. boo xam ne bu am solo la ngir lan saa yoo xamee ne jógee ne fii Dakar wala jëm fële Touba daal teertu boo xam ne incha allah fas yéene ko taxawal waaw waaw waaw waaw ñu ngi koy waajal baax ñu ngi koy waajal ci sonorisation ñu ngi koy waajal communication ak fexe fexe ba ñëpp yëg ko mm-hmm. fexe tamit ànd ak moom ci sécurité ak lépp ba nga xam ne si bu ndikkee population Touba bépp kenn ku nekk di nga ko mën a séen waaye di nga mën a euh, saafonte ak moom ànd ak moom gunge ko ba mu siyaare sëriñ bi jël ndam li jox ko sëriñ Muntaxa sëriñ Touba mi nga xam ne si ni mooy borom Touba euh, cey tamit ndam li doon ndamam di ndamul sëriñ tuba dina mul waa Touba gépp loolu daal ñoo ngi koy waaj euh, moo tax ñu bëgg teel a waa Touba ngir waajal alxames ji incha allah moom lañ indi fii ngir teewal fii monsieur le maire Abdou Lahad Ka di ko ñaanal sama a woyof ci a baax leen dig la bu soobee yàlla incha allah di leen jox jox dig daje lii leen ñu indi leen tey fii nga xam ne mooy aéroport international Blaise Diagne ñu àndoon nag Rafah TV suñu Mourtala ci cameraman bi macha allah di leen jox dig daje ba beneen yoon ba soobee yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu والقلم وما يسطرون mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullah C3S moo dellu soit ak yéen ci jongante mbindum alxuraan bi mu baaxoo amal at mu nekk édition ren bi nag dépôt yi ñeel candidat yi ci bëgg a bokk dina door benn fan ci weeru octobre 2022 war a jeex fanweeri fan ak benn ci weeru octobre 2022 yow mi ci bëgg a bokk dangay bind lu tolloog xët ci alxuraan def ci sa tur sa san sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko c 3 bi la gën a jege wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bi di candidat point yaatal mbind nga topp tegtal yi lay jaarale ci yoon wii tax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 76 wala ñu woo Serigne Ahmed Tidiane ca Matam ci 77 424 23 21 ku ci bëgg yeneen i leeral ak foo mënti nekk ci biir réew mi wala bitim réew mën ngaa woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. bi ni'mati rabbika bi majnun